leral la nak lo xamul won xam nga li tax mu don imam dafa bëggoon xayral anam sëñ bi ko fal xayral imam kana la wax nak kay la won bis bam ganee adduna moom fële ñu naa deru xalim moom la wala fi waaye ndam Cheikh Abdourahmane man ko won muy ñetti fan ci utam xarit sëriñ bu mag bi ni bari ni na wo sama xarit amna fi gam gu doy ki man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 ñëwoon nag ci ndigalu Serigne Cheikh Deme délégation bi fi yebal ci at <coughs> mi ci waat bi njiit bi nag di Serigne ko lenn ci rakkam Serigne lenn ci doom yi ak dongo yi. mu ñëwoon teewal bi ak mu jot nag loolu ma ko defalee nii mu ko santaane fii ci ko di ay ñaan nag sàkku yi ñaan nag ci bis bi ak borom bis bi ci sàkku yu ñaan di sàkku waale ñaan mboolem taalibe yi yàlla defal leen wér defal leen xéewal te xiir leen ci sëriñ bi ñu bañ koo génn fenn ñu dikkoon nag doon ko doon fi teewal ci sëriñ bi rek kàddu yi nag moom xam naa du ndax dañ fee ñëw ci ma la ko waxee rek ci ndigalu sëriñ bi rek ngir ñu teewal ci ko fi nga taalal ma sa micro ma ne ñàkk a waaye ñun fii sax amu na fi kàddu ndax Cheikh Ibrahima moom ci kër Serigne Touba. la ma fa am mooy déglu baatum digal bu ko déggee rek jëfe ko waaye sañu fee wax dara noo ngi jéglu sax kàddu yi ñu yëkkati di ko wax mu mel ni dañu fee am baat te ñun su benn baat lañ fi mooy baatum digal rek ñu dégg ko di ko jëfee kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala man la nabiya baado asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu Euh, Serigne Djibril Lo ñu ngi leen nuyu waa Touba TV yëpp sant bu baax ci taxawaay ba rafet ngeen taxaw ci màggal Serigne Abdou Khadre gi ca waajtaay wi ba nga xam ne tey ñu ngi ci bis bi ci yoor yoor gi ni nga ko waxa woon fa tabaarakallaahu waajtaay wi moom njàll na ba ak seeneen ci yax bi euh, nin ko nin ko bëggoon a yëgle yëgle bi na mbooloo ñëw na yi nga xam ne moom lañ doon soxla te duñ ko demande ci autorité bi ak ci ñi nga xam ne ñooy municipalité dëkk bi ñooy lépp ku ci ne wax dëgg yàlla ku ci ne jéem nga ca li nga man lépp mbax am na yu ci manqué waaye am solo moom ñun mën